mardi 9 mars 2021 mbokku téléspectateur Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte ak contentement di ànd ak saa su nekk di kontaan rek tamit ci kóolute bi ngeen xam ne rek am ngeen ko ci ñun. dale na jàmm seen journal de l'arène ma ciy ànd nag Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami. ci loo nekk. sant yàlla yaa ci jàmm. waaw may wër. nuyu la téléspectateurs yi. naa leen jaar leen ñaanal leen jàmm di ko sàqu ci ñoom ah. Mhm. mais di profiter aussitôt di nuyu jigéen ñi tamit ci mois de marse bi rek comme na nañ seen weer la. Mhm. mais weer yëpp pour man jigéen ñee ko moom. te muy dëgg titre daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 9 mars 2021 dañuy ñëw ak yéen yëgle yi suñu lamb la ñuy xëy doore ko. sunu làmb nag moom tey la mu xëy fësal ci xëtam mu njëkk lenn la maanaam ñetti mbër yoo xam ne ay VIP lañu ka ca njëkk moom moo di Balla gay numéro de mi fi nekkoon roi des arènes Gris Bordeaux mi nga xam ne tamit moom mooy troisième tigre de fas ak Modou Lo mi nga xam ne jamono ji moom mooy le roi des arènes yëglikaay bi di su làmb nag moom tey daal fa la gaa yi xëy waxe ñoom VIP yooyu waaye la ñu wax daal la ñu jàpp daal jàpp nañ ne ñoom buri ak maccum lem moom mënuta ànd te Olof Njaay moo koy faral di wax loolu soo ko déggee mooy Balla Gaye de jàpp na ne moom mbirum komba maanaam lu jëm ci combat moom mënee su koo wax fi mu nekk nii te jàmm amul ci dëkk dëkk bi ndax nag nee na am na loo xam ne xel da koo sax xalaatul maanaam ñuy wax ay waxi komba te dëkk bi nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne nii ay bakkan a ngi rot ay doj di jóg ay bal di jóg balla ne na loolu mënee su caa ànd ak di di ca jaar naan da ngay wax komba ak di bëre ki nga xam ne moom moo di Modou loo tamit moom lu mel noonu la wax ne na combat moom mënta am déedéet xanaa kay day fekk jàmm am ba pare waaye nee na bu jàmm amulee moom Modou nee na xalaatul defee kon ne na kay nañu wëri leneen li ñu war a wër kay ne nañ mooy jàmm ba pare buñ ca nekkee nag réew mi dellu ca na mu meloon ne na su keroogee seeni combat es man caa wax wala ñu man koo xaar maanaam ñoom loola la lanu gis ka nga xam ne nag moo leen jiite ca seen association ba di Gris Bordeaux moom la mu gis te ñaaw ñaawlu ko wala boog mu jàpp ne na nga xam ne nii moom la ka nga xam ne moom mooy ministre de l'intérieur Abdoulaye Félix Diome Gris Bordeaux daa jàpp ne déclaration ba mu def daal mbir la moo xam ne daal dafa nekk di xupp nit ñi ak di leen jéem a xoqatal te jàpp na ne loolu waru ko Gris Bordeaux ne na beneen discours la ñu doon xaar ci ki nga xam ne moom mooy le ministre de l'intérieur mooy boo xam ne day dalal xelu sénégalais itam wax ak ñoom ci wax joo xam ne daal des na ko mën a dégg maanaam ñooñ daal tey loolu la ñu xëy di wax ñeneen ñoo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ci VIP yooyu la ñu bokk le 4 avril ñu war a jongante yëglikaay bi xam nañu ne daal muy lakk wala muy ëmme fi mu nekk nii soo bëggee dégg dëgg ñu nga ca seen ay réglage yu mujj ngir di waajal la 4 avril seenub jongante sunu làmb xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne nii moom soo bëggee dégg dëgg moom la huit wala boog huit ans ngi nii juróom yoo xam ne ndam gisu ko ak i bët muy lacrosse mu faas yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom moom sunu làmb keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi nee na ndam la doon wut waaye dañ ko mujj a daan muy building fa nga xam ne moo di ca Gambia làmb ca jamaykee tëggoon booy bàlla daal moo fa daan ka nga xam ne di Mody Building parcat appi loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey dina ko wax yemu ca de lambi gàmbi jooja ba tey am na combat beneen boo xam ne moom la ñuy tuddee combat spécial amoon na ca bis booba ka nga xam ne nii moom moo ko doon jongante moom moo di jàppal ka nga xam ne moo di amical moo fa daan ka nga xam ne moo di bébé xarañ yëglikaay baa xëy ba tey dina ko wax tey seen gin gineew moom xëy na ci sunu làmb moom tamit waxtaan fa wala boog wax fa ba ne xaaw sunu làmb xëy tey dalal ko ka mu xëy nag sëmpam am ndëndam dëkk ko ay loxo du kenn ku dul bàyyi ma njoon mu caaroy ndax tey seen ngin ngi neew ne na bàyyi ma njoon mënumaa moytu ndax amul fa mu jaar ngir moytu ma ndax ne na jàpp na ne bàyyi ma njoon bëri naag ñaari mbër yoo xam ne ci làmb ji ko indil ay jafe-jafe te man ba nu jàkkaarloog man dama leen a wan sama bopp moom loolu la xëy tey di ko wax jàpp na ne tamit wàllum nervi ma ñu leen di wax ne na ñoom duñu ay nervi tey suba waxi noppi yàlla kay moo leen booleeg màggat seen ma nga xam ne moom moo di njiital kudd ba pare itam mu maanaam daal ñu yàgg liggéey ak moom ci luy aar la nga xam ne mu di étudiant ak lu mel ni ki noonu waaye nag du ñu nekkal nit tey néer bi suba waxi noppi tey seen gin gi néew moo xëy tey di wax lool ci sunu làmb ki nga xam ne nii moom nekkulub néer wi te jege ñu koo nekk moom moo di saala biige maanaam Sall Bigué Ndiaye daal la mu xëy tey di ko wax lenn la maanaam rig rig dañuy wax Leewtoo fa lañ ko dalal la mu xamle nag ci combat bi ku gën a marqué ci carrière am nee na jàppal moom moo di Mohamed Ali ak ka nga xam ne moo di màng 2 waaye itam neneen ko kan mooy sa mbër mu ne Tafa Gueye moo mas sa nekk mbërëm yemu ca la mu bëgg ci góor tamit ne góor daal bëgg na góor goo xam ne da ngay sérieux lool maanaam teg say mbir ci yoon jigéen tamit ne na taamu na ca jigéen joo xam ne da ngay ubbeeku waaye tamit du la taxa ñàkk fayda saala biige njaay daal moom tey loolu la xëy wax record nu fa demee nag lan fay fekk lenn la mooy diggante Siteu ak Papa ba nga xam ne mois de août lañ ko fas yéenee def mu mel ni kii nag Siteu daal mu nga koy xaar xaar gu baax a baax Papa tamit nee na mu ngi xaar ba gis lu mel ni kii noonu mu mel ni kii booba combat daal annoncé nañu ko pour mois de août ñeneen ñoo xam ne ba tey ñu nga ci record xëy tey di wax ca huis clos ba muy ay soxna muy Ndey Kumba Fall ak Aysatu Fay di ay journalistes jigéen yoo xam ne ci sport la ñuy yëngatu maanaam huis clos ba daal ak na mu war a amee ak na muy amee ak bu amee nu mu demee ak internet yooyu war a am la ñu xëy tey ñoom ñaar ñu dalal leen ñu di ca wax gomis waaye gomis waxoon naa la ko jàmm gënu ay tey boo xëyee nga xam ne jàmm gën aw ay nit ñaa ngi dem ku ne di dem di dikk defe naa Sénégal loolu la xam kon na nu bokk ndey bokk bàyyi te duñu dañ ci di ko wax autorités yi ñu jiite nañu fexe fexe ba xam ne ñoom itam rek lañ leen waxoon démb mooy suñu waxe tey moomuñu réew mi dañ leen koo dénk kon nañu xool li réew mi bëgg te mooy li liy doxal réew mi ñu jéem caa nekk ànd ak askanu réew mi te bañ leen a sori voilà bu nekkoon revue des titres suñu lamb tey ci xëtam bu njëkk Babacar xëy ak ñun nag ci ñett mbër yu mag yi mu yee ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne moo di Modou Lo ci mhm. coow li nga xam ne jot na am Sénégal jaxasu beeg yëngu-yëngu beeg lépp li ni mel daal fi mu nekk ni ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 àdduna ci moom daal lam xam ne moo di mënuñoo bëre non mënuñoo euh, combattre sans la paix maanaam. jàmm daal foog mu delsi pour euh, li nga xam ne ñu ngi koy bëgg ci suñu Sénégal daal di am mhm. waaye ki nga xam ne tamit moo di moo du loo féelu na ko foofu rek xam ne daal jàmm ci la lépp xej mënuñoo am li nga xam ne moo di seen combat yi sans jàmm mhm. Mhm. waaw loolu defe naa ne moom mooy waxu citoyen te la ma doon wax si ñoom rek ñoom ñii ay citoyen lañu tey yow mi nekk autorité yaa xam yaa jiite réew mi wala yow la ñu dénk lu ñu la mën a dénk ci Sénégal ak foo boo ci mën a taxawee boo xalaatee ne gën nga nekk mbëri ay patriote wala ay citoyen yaa ngi nax sa bopp ay patriote lañu ay citoyen lañu parce que defe naa ne Balla Gaye numéro 2 muut Lo boo déggee ñu wax loolu ça veut dire que moo lay wan ne ñoom responsabilité bi ñu am ci dëkk bi. parce que tamit dafa am ñu leen bëgg am ñu leen di topp am ñoo xam ne suñu génnee ñu di leen topp bu ñuy bëree ñu dagg ay biir yu seer. yaa ngi dégg di jënd seen ay tiset kon defe naa ni ñooñu nag buñ nekkee ci mbedd mi di xeex ba ay moor di ci am defe naa kon ñoom ku leen di wax waxi combat sax da nga leen bëgg a tooñ defe naa kon ni ñu waxee bettul kenn te yaakaar naa ne loolu lañ mas di waxee ah ñoom maanaam jàmm lañ mas di ñaan parce que olof a ko wax jàmm ci la lépp xaj te defe naa ay honnête citoyen lañu amul sax defe naa loolu moo am parce que moom la ñuy wane à chaque instant chaque jamono june ci loolu la ñuy dox maanaam di wane seen citoyenneté di dimbali ñu ñu tane ci li leen yàlla dénk te du ñu wax ba nga xeeb leen. kon yaakaar naa ne li ñu wax moo am. ami olof a wax buri mënta ànd ak maccum lem. te muy dëgg maanaam mooy li ñu wax ñoom ñi jàmm bu amulee defe naa ne di nga tal leneen lu ay bëreeg Babacar ak Ami sax bu keroogee plateau bi dootuñu. te muy dëgg waaye ba tey rek ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux Gris gën a xuus ci mhm. moom dafa àddu ci nga xam ne moo di discours ministre de l' intérieur. Mhm. daal dafa xaw menaçant daal. waaw parce que olof leneen ñëpp wax mooy dëgg. Mhm. Abdoulaye Félix Diome. Antoine comme ni ñu koy waxee mhm. moom mooy le ministre de l'intérieur mhm. duñ ko ko bañal parce que moom la président tànn wóolu ko te moom mooy nommé moom la ñuy jox loolu ñun mhm. sénégalais yi muy nome moom nag moom lañ fa teg problème bi nag bi mu amee ba jaxasoo am ba ay am ci bi mu génnee nit ñi am na leen lu ñu doon xaar parce que nag sénégalais yi ëpp wala ñëpp sax mën naa ne ni mu waxe d'accorduñ ci kon defe naa nag wax ji kon am na njuumte mhm. nit nag dina juum te Youssou Ndour noonu nag mag dina juum xale dina juum mhm. waaye kilifa dina juum sultaan sax dina juum mhm. kon dafa juum pour man ci ni mu waxe parce que tamit am na foo xam ne su fa sam réew tolloo ci xol yu tàng mer ak kiyante defe naa du ay tëj wala ay wax terroriste mooy tax mbir ya rek la da leen di woo ci dal ak jàmm ñu xam ne ay citoyen lañu su ko defee ñu wuyu la ci ndax sénégalais jafewul a waxal waaye nag am na foo xam ne gis nga ami ma wax la tey sénégalais mhm. mën nga leen di tooñ mën naay tooñ ami di ko tooñ di ko tooñ di ko defee ay affaire muy bàyyi muy sedd muy bàyyi may gis nga bés dina ñëw mhm. non ami uta utal ma awrad ne ma fii dootoo ko jéggi wala bés bu ma ko jéggee bu keroogee moom mhm. des nañu tàqale sénégalais noonu la mel loolay fippu yaa ngi dégg mhm. loolu nag dafay ëpp autorité di ñu provoqué wala ñu def yenn yu teex ñu yegg ak ñoom mhm. fii kon Abdoulaye Félix Diome mhm. loolu mu def bu ne njuumte la na ko reconnaître xam ne nit dina juum te kilifa yi dana juum te muy dëgg ba tey rek ñu dellu a ci làmb ji ki nga xam ne moo di euh, Lac ak Eumeu Sène ñoom seen datu 4 avril ba ku nekk rek yaa ngay waajal sa boor waaw incha allah rabbi comme li ñu doon a toll noonu ci ñaari mbir yu toll noonu soreetul ami kon defe naa ne fi mu nekk nii moom ay fana ci des kon defe naa waajal jot na waaw olofa ko wax wasin baa dem tool fi mu nekk nii si ñoom ñaar waaw waaye Babacar di bëre tamit te amoo amoo victoire dafa métti waaw moo tax ki nga xam ne nag moo di Lac Rose huit ans ngi nii euh, amul li nga xam ne moo di victoire mu doon loo xam ne nag métti na waaw métti na trop parce tamit xale la boo xam ne nekk écurie Fass làmb am si moom yaakaar mais rawatina écurie bi mu nekk muy Fass defe naa bu toogee juróom-ñettat yoo xam ne amul ndam ah métti na trop ci koo xam ne sportif la yaa ngi dégg te am fu ñu la doon xaar si làmb loolu nag li ko indi bokk na ci blessure yoo xam ne arrivé na ko si biir carrière am ba tax na loolu te am na blessure yoo xam ne boo arriver sportif bu ko fajul sérieusement ba mu dañ ci moom. pour mu atteindre niveau bi nga xam ne moom mooy niveau. da koy bu kawe bi voilà day da koy néewal doole. Mhm. loolu defe naa mooy li ko indil lii. te yaakaar naa nag actuellement ci source yu ñu am si moom yaakaar naa ne loola fexe na ba faj ko ba actuellement mu ngi ci mhm. kon nag dañuy ñaan yàlla rek mu ñëwaat ci làmb jeeg jàmm victoire nag moom da di moom waaw nda waaw ndam moom mhm. ñun duñ ko ñaanal mbër muy bëreeg sa morom parce que xam lu tax ñun ñépp lañ fi nekkal dëgg waaye daal na ñëwaat wér rek pelek pour mën a jàmmaarloo. te muy dëgg waaw. voilà bu ñu foofu ñu seet ki nga xam ne moo di Tyson bu ngay Guinguinéo moom nag fi nekk nii nee na Baye Mandione mënatu koo éviter. pare na dem ko attaqué <laughs> <laughs> xam naa boo leen boole woon ñaari xeexkat. <laughs> waaw parce que ñoom ñaari ñëpp mën a xeex ndax dama leen a xam. Mm-hmm. te si ngi ne nekk mbër moo xam ne ci petite côte bi vraiment wane boppam Ndakaaru wane ko ci làmb ji de ba ñëpp xam ko tey defe naa kuy dund làmb xam nga kam mooy Tyson Guinguinéo yaa ngi dégg mm-hmm. defe naa tey bu xëyee ne Baye Mandione mënatu maa moytu ah xam na ne dafa bëgg bëre ak moom loolu nag yàgg na ci làmb mbër yàgg naa dëkk moroomu mbërëm parce que loolu tamit moom mooy sarmu làmb quoi da koy neexal te ba tey rek ca gàllaa ba amoon fële Gambie ki nga xam ne moo di Boy Balla daal di daan ki nga xam ne moo di building par quatre appuis waaw muy jamaykee moo ko fa tëggoon mhm. ñuy nuyu waa Gambie yépp defe naa ne loolu moo amoon Gambie kera dimanche mhm. Boy Balla daan fa wala boog building daan fa wala boog ki nga xam ne moom moo di ah, xale bu nu mu mhm. booy eh, Boy Balla daan building par carte appui ñu koy félicité di encourager booy Balla waaw muy combat boo xam ne neexoon na trop combat spécial tamit amoon na ca ndax ki nga xam ne mooy amical moo am fa daan bébé xaraj kon ñuy féliciter jamaïcain bu baax a baax vraiment moom itam ci effort yi muy def pour di dundal làmb ci diggante ñaari réew yi muy Sénégal Gambia waaw di ci profité di nuyu waa Gambie yépp rawatina ñoom As Serekunda ñoom Jibal Touré ñoom suñu père Ndongo Cissé képp kuy doomu Gambia rek Paate Gambia ñu lay profité di nuyu ci journée bi nga xam ne moom la Jamaïque tëggoon foofu ca Gambie. Mhm. ba tey rek suñu nijaay bii di Saleh Bigué daal dina àddu rek fàttaliku démb moom daal la mu xam ne moo di combat ki nga xam ne moo di Mouhamed Ali ak Manga 2 moo ko gën a marqué daal ci histoire lamb ah suñu papa Sala Bigué Ndiaye suñu mhm. papa di suñu royukaay ñu koy nuyu di ko ziar euh, di nga dégg des fois maanaam combat bi ci luy baax la doo am roq bu mhm. boo ko déggee ma di ko wax rek ci kii laa ko jëlee ci moom moo koy faral di wax mhm. muy koo xam ne yaakaar naa ne tamit tey ci wàllum communication marqué na ci empreinte am ba mu leeral leeral leen nañ ñu ko ñaan gudd fan ak wér wax na dëgg combat Manga ak Mouhamed Ali ah combat la woon bu doyoon waar mhm. bu metti woon kon defe naa bu ne moo ko gën a marqué mhm. lu jar loolu mu wax lu am la parce que combat ba na mu demoon a métti te muy dëgg mhm. voilà euh, yooyu la information journal suñu làmb ñoo ko loolu ñu daal di jàll rek fi nga xam ne moo di record bañ demee fekk nañ fa ki nga xam ne moo di euh, Siteu ak Papa ci seen combat bi nga xam ne dañ ko dëdmal mois d'août ku nekk rek euh, mu ngay xaar ci côté am waaw mu mel ni dañu annoncé ne mois d'août la ñu war a bëri ñoom ñaar moo tax fi mu nekk ni ñoom ñaar ñëpp ñu ngi jàpp ni soccet di xaar di déglu xam naa pour loolu ñu am ci confirmation rek mm-hmm. waaw muy combat boo xam ne daaw lañ ko waroon def te avrilu daaw mm-hmm. far yàlla def corona ñëw ba amatul mm-hmm. loolu moo dàq combat bi kon defe naa daal date boobu ñu promoteur mm-hmm. bi annoncé yàlla nañ ci yegg ak jàmm fekk ko te tal ko ba ñu mën ci bëre ñoom ñaari mbër yi amin ba tey rek ci information yi sama ñaari naataango yi di ay journaliste sportif daal dinañu àddu tamit ci yi ndax euh, li nga xam ne moo di covid 19 ba mu ñëw ba léegi ñu ngi ci coowal combat huis clos day am wala du am ki nga xam ne moo di Aïcha Faye ak euh, Ndeye Kumba Fall nekk ay journaliste daal dinañ ci àddu waaw ñoom ñaar ñi moom yàlla dafa dogal ñii ñoo xam ne mm-hmm. yàlla dafa def ma partagé ak ñoom rédaction ay jigéen ñu mën góor la ah, non ay jàmbaar lañu ñu xarañ ci wàllum bind xarañ ci làmb xarañ ci sport au Sénégal sax laay wax jàng journalisme mu ba am ci niveau muy Aïssatou Faye madame mm-hmm. Niang mm-hmm. ak Ndeye Koumba Fall yaay Mohamed mm-hmm. ma di leen ziaraat di nuyuwaale maire Sow yaay Ndeye Koumba Fall ak ki nga xam ne ni moom mooy yaay Aïssatou ñoom ñoo di sama ay yaay eh, parce que ñoom ñi sama ay jigéen lañu eh, yaakaar naa bu ñu waxee ci làmb ak huis rek war nañ cee wax ndax lu ñu xam la parce que yàgg nañ ci di ci liggéey defe naa ne kon tey bu ñu leen ci laajee rek war nañ ci wax te buñ ci waxee wax wax nañu ci li ñu xam di leen ñaanal jàmm fa ñu nekk bu baax a baax a baax di nuyu seen ay mbokk yëpp waaye tamit di nuyu Abou Ndour bi nga xam ne moom moo leen dalal te muy dëgg voilà xibaar sant yàlla rek julli ci yonent bi ñaan jàmm Sénégal di wax ne que suñu réew muy Sénégal ñoo ko moom nan ko sàmm bu nu ko yàq bu nu ko kenn tax a yàq politicien bi nga xam ne ni moom mooy politique ñu jënk ko réew mi euh, ami mhm. bu mu tax ñu yàq suñu réew ndax la plupart ci yenn du politicien yëpp de mais am na ci ñoo xam ne ay double nationalité la ñu yor. Mhm. bu mbir yi taree ñi mën ñoo jël avion génn réew mi bàyyi ñu fi. Mhm. te kon bu keroogee doo leen mënaan dara. Mhm. kon ñu man ak yow ak gomis ak ñu mel ni ki ñun. ñi nga xam ne fii rek la ñu yaakaar nan noonu sàmm suñu am réew. waaye nag it kenn du ñu teg loo xam ne nanguwuñu ko loolu moom dañ koy bañ parce que tamit ñoom dañ leen a dénk mbir nag suñ la dénkee da nga cay def lan neex ña leen dénk mooy teg ko ci aw yoon defe naa ne loolu mooy li war a am opposition bi tamit ñoom itam ñu ngi leen koy wax ndax ëllëg Macky Sall dafay jóge keneen jël pouvoir bi ka jël xaw ma Sonko la xaw ma Karim la xaw ma Khalifa Sall lay doon waaye nañu fexee fexee fexe ba bañ a rusloo Sénégalais yi mhm. ñoom itam loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax di profité nag di nuyu ñoo xam ne samay xarit lañ ndax man lu may lu may wax dama koy assumer mhm. yàlla ma boole ak ñoom te ñu ne ci pouvoir pouvoir bi muy maître Pape Sène ma bokk ak moom commune mu nekk koo xam ne jàmbaar la liggéeykat la mu koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ki nga xam ne nii moom moo di docteur Macoumba Diouf di meeru Lat Mbengue moom tamit di suma xarit ndax nit ki moom ak lu mën a xew rek la nga seq ak moom da nga koy assumé te yàlla daal dafa dog ñu di ay liggéey di ay ñooy ay liggéeykat di ay nit baax abi yow it maa ngi lay bégee bu baax di la <laughs> félicité macha allah ci effort yi ni ngay liggéeyee te defe naa loolu rek moo am solo mm-hmm. yàlla tey nga quoi ah, te tey ci ndox lañ ko gën a taamu mais si nit la baax te macha allah boo ne tekk-tekk war na aw yoon yàlla na sa carrière dem ba romb fi nga ko fees fi nga ko yaakaare amiin voilà mbokku téléspectateurs yi fii la ñuy daal di yem ak yéen di leen jaajëfal waaye tamit di jaajëfal gomis ak xulle mi nga xam ne rek moo nekkoon na ci xarale gi di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf